dikkati na kuy candidat sa loxo sa kaw turbine yéen a kaay naan maan fi mu ne day test bu njëkk gi cuuc xool ndax yaakaar mën na amam déet ni tey lay tàmbali ci réew mi tirage au sort boo xam ni conseil constitutionnel moo koy daal di def ngir xam nag ban candidat la ñuy njëkk lañ bët ay dossier daal di natt ay parrainage ak ñoom seen yéen kaayub dee média bi naan man en tout cas étape bi bu am solo la ñaabar ñaabar jëm ci parrainage yi waaye nag lépp risque la te ragal du ci boppam ñi nga xam ne ñoom la ñu duppee ay grande coalition nee na ñoo yaay soo moytuwul day ñoo ciy gën a ñàkk wala ndax ñoom dañoo daal di raatale daal jël parrainage yi ba maar day taali nee ñu nag ngir naj ña nga xam ne dañ leen dippee ñu ndaw sutuut te sutuut soosee buñ njëkkee jàll dana métti ci grand yi wala ndax ki ñu njëkku xoolal moom ku ca topp nuróoleeg moom daanaka doublon lan lay woowe moo tax attention ci grand yi attention tribune yéen a xam le ko lanket l'enquête quotidien daal di may xamal ne en tout cas candidature yi bari na ba maar day taali juróom-ñeent fukk ak juróom ci ay candidat ci benn réew su ndaw sii di Sénégal ñoom ñëpp jël askan wi bari na yéenekaay bi naan man bu nekkee ñenn ñi moom ambition la bëgg yor Sénégal defar Sénégal soppi doxalinu Sénégal ña ca des moom bës leen ca dugal manees na ko expliquer ni ki Benno Bokk Yaakaar na mu xaree yeewi askan wi sàllar ñi ko fële wallu Sénégal daal di tas tasar yéenekaay bi duñu xamal ni ñu yees ñi nga xam ne dugg nañ ci langu politique gi waaye tam ña nga xam ne seen bidéew daal ci présidentiel bii la nar a jaaree fenk attention am na ñoo xam ne ko jàppee ak business am na ci candidat yoo xam ne yéen bi naan man fan dëkk ci boppam xamuñu leen yor yor mel ni ku naan koon la dal ñooñee dalul Bougane Gueye Dany candidat ci élection présidentielle la Sénégal xam ko ñaar fukk ak ci ay poñ yoo xam ne moo tënk programme économique bi nga xam ne moo nar a joyanti réewum Sénégal mi ngi yéen kaayub Serigne Saliou Gueye bi xëy jox kàddu Bougane Gueye Dany mu naan ñun ñooy génération bi nga xam ne ñoo nar a foqar ci Sénégal ci loxo yoo xam ne setul tegaat ko ci loxo yoo xam ne moo wóor moo gën loxo yoo xam ne ñoo set la yor loxo yoo xam ne ma ni la daanu njaagar jaagaree Sénégal yóbbu ko fa gën loxo yoo xam ne at yee di ñëw dana neex ci sénégalais yi wala dana dàq yi nga xam ne ñoo weesu woon lépp luy naqar am ci réew mi at wii ñu dëgmal dana ko faase ngeen nar ko teg ci loxo yoo xam ne suñuy loxo jox ñu ay responsabilité yoo xam ne fas na nañu yéene tabaxal Sénégal ëllëg goo xam ne pour ñun la gën ndax fii la ñuy dund ñu nag suñu njaboot waaye tam tabax Sénégal goo xam ne suñuy sëtëki sëtaat daa ñu xam ne am ñu yor programme tekki day bu ngeen ko yëree ñaar fukk ak ñeenti poñ yii daa ngeen xam ni pom du neew te daa ngeen xam ni joyanti Sénégal daanaka jafewul volonté la ak bëgg-bëgg waaye tam sam réew daal di lay jaral ba maar day taal yi le quotidien le quotidien daal di ne ma en tout cas Sénégal mitti na yokk nga xam ne yokk nañ ko njëkk yi ci biir ménage yi tax na lu toll ci ñetti téeméer fukk ak ñeenti junni ci ay doomu aadama yi fii ci réew mi ñi ngi soxla nag ñu jébbal leen lees dundee daar daar ndax fi mu ne ñàkkub dund xiif mi ngi leen di tongal yoor yoor naan dem leen seeti bugaan gay dani ma nga naan joyanti Sénégal force la yéen daal teg leen réew mi suñu loxo rek maître Sidiki Kaba ci turbine yéene kaay di dalal xelu acteurs yi leen présidentiel bi day seen xel mën na caa moom ma ngay waat naan présidentiel bi jaar yoon rek l'observateur naan man en tout bu président Macky Sall bi fi ne day mi ngi yënxale ndax Amadou Ba mi sénégalais dañ koy xool niki troisième mandat bu président Macky Sall la ba weñ la a am ci premier tour deuxième tour Amadou Ba jàll ko dana bett sénégalais yi wala tribune yéen a kaay naan man en tout cas ay ñoñam moom ña ngay xeexoo moom maire bii di Kalidou Wage moom la ñu attaqué ca bokki jawbe te loolee nag ña ngi ko jiiñ Farba Ngom amoon nag ca Benno Bokk Yaakaar ba nga xam ne moo am ca orka jéere Samba Sow naan fi mu ne président Macky Sall nag moo war a wax ak Farba Ngom ndax APR booloo la tal talul benn xàjjalikoo ak i dal ci kaw ay militant te xam nga maire bii liñ ko def mitti na dal gin dal ci kawam mitti na ñuy a waxtu woo xam ne fi mu ne président Macky Sall booloo la laajte doon benn la ngir am ndam bés bi le jour naan man ci 31 décembre bii day moom Sall dana tàggoo tàggoo ak sénégalais yi niki ni ko Senghor defee woon 31 décembre 1980 Abdou Diouf mosu ko def maître Abdoulaye Wade mosu ko def Sall ngaari lam tooro buur géda yàlla may na ko chance su mën a tàggoo ak sénégalais yi le témoin yéene kaay naan man Karim Meïssa Wade booba ma ngay taxawal ay comité électoraux waaye Anta Babacar Ngom it ma nga ca biir Sénégal ci ruq-ruqaat moom jiital arc xamle ni mi joyanti napp gi mbay mi waaye tam càmm gi bokk na ci ay yitteem daar daar fii ci réewum Sénégal boobu Sénégal dund na métit yoo xam ne 2023 métti na wala Sud Quotidien daal di may xamal ne diggante politique boo xam ne daal dina yëngu yoon daal di koy bëtër ñi manifestation yoo xam ne am na juin ba ay bakkan daal di cay rot am nay liberté yoo xam ne daal di nañ koy caxat caxatee daal di ñor di daal di tëral daal di faat wàllu loo lambe ku mën sa morom duma daal di am ci 2023 bi turbine yéen kaay naan ko ndorteelu 2024 nar a métti boulanger yi fas yéene soobu yóbbu ci gréew goo xam ne maar day taali ñu fas yéene tàmbali banque seen loxo duñu lakk mburu ndorteelu 2024 bi vox populi di ma xamal ne évêque yi nekk fii ci réewum Sénégal xam le nan ni la ñu dogal ci ne mën nañoo takk sayu ñaari góor wala ñaari jigéen lànk nañ ko xalaatuñu koo def ci mim réew booba barñee ngay sargal seen directeur yi gën a ràññeeku njiital compagnie de l'électricité bu Sénégal Malick Seck waa bar barñi def ko meilleur directeur daal di koy sargal turbine yéen kaay naan man commune bu jawle yi Babou Diouf sargal ay ndawam njiital jawle fa ay activité sportive yoo xam ne maar day taali bés bi nan man tey ji Aliou Cissé dina xamle moom it yan gaynde lay àndal ci kan bi l'observateur nan man daanelal ak man ma xamal la ni accident ba nga xam ni amoon na ca sikilu Sene Sene Info International